bajo vera nyabara fi jole duru nyaga tebe Ebu bajo vera nyabara fi jole duru nyaga tebe ker lam koy defal lii lan la. rakam la ñoo bokk ndey baay magam la. Ah. non rakam la rakam la. kii mooy Modou Lo mooy ànd ak Boy bu déggoon. waaw mais dafa jël mbub mi. waaw ay bagage la. Ah. ay bagage la biir. ay waay lamb. ay bagage la. lamb doy na waar. ay bagage la. te bokk ndey koy jur nag. te xoolal na mu sànnee pitax ba. waa ci yàlla yi la ko jaarale mu dem. lamb doy na waar. waa lamb mi tudd lamb sax xamul lamb. arbitre baa ngi xool eh Coly Faye na nen wa Coly toj na nen arbitre baa ngi xool ngemb la ci ginnaaw nee ko defaraat ko nan di far suñu ndeyjoor ndeysaan biram Coly Faye féete gauche di wax ñoom Mathieu mooy arbitre combat bi wax li règlement yi bëgg ak li mu bañ kon ku ko def buñ la sanctionné yaa yaa tooñ sa bopp ndax làmb daa am ay règlement bu biram ñing xam nga ñaari mbër yoo xam dañoo jóge ci defet waaye ñoom ñaar ku ci ne fi ngay mujjee fii dañ laa daan kon xam nga mooy moo loolu mooy dund ko daanu tey ko li fay gàmmu ko mujj a daan ndeysaan ndan di fal kii di soq ko mujj a daan mu mel ni que kon ñoom ñaar ci ay defet la toog loolu am arbitre sifflé na ti ndeysaan arbitre sifflé na ñuy doxewet ñu ngay doxewet taxaw nañu kolifa yee ñu wan ginnaaw ah songo nañu daa doon joor door bu joor loog moom xeexuñu jàppoo ah kole ngay door ci suuf ah lu eh Ndandi ko doon yóbbu si tey de Ndandi Fall bëre a def def Babacar ko bëgg def taf ci ah, ah, mu ba fu mu jëm eh ñu ngay bëre de ay la la bëre a doy na dande koli dandi faal koli fay dandi faal oh koli fay jël na ko daanoo guñu ah ñoom ñaar dañuy jëlante dañoo bokk bëre Babacar waa koli day door dandi faal di wër bëre bi xoolee mais bëre bi lay wër koli bam ko jëlee léegi da ko jël ba yaakaar ne gën na ci moom bu jëlaat ko même jël bi la ko jëlaat ah, même jël bi ndeysaan dañoo tafante wet waa wet lañu bëree ah nande Coly Faye a ngay door tafu wet bu amante Babacar damay ragal mu sees ko waaw xalaat naa dinañ tafonte de ndax ba ñu tafoo léegi Coly Faye essayé na ko daf ca yàggul Coly ñu woon ginnaaw nu nga ca ba tey de jàppante nañu nu nga ca de waaw mu ngay soroxal ci suuf ndeysaan Coly Faye numéro 2 mu ngay ah mu ngay door Coly Coly Faye door ci Leewtoo TV diggante yàgg maar la Babacar attention Coly Faye jege na saako yi yàgg maar doomu ndeyu Kempes borom laax bi eh yàgg fay borom buur kenn borom buur borom drapeau waaye ah. na mën a taala Njaay ah jege nañu vingt heures seize minutes Babacar drapeau Luc Nicolaï doom de ko fi teewal wi ak Pape Modou Mbaye a gisee. Ah, nañu ah daf na ko daan na ko. laa ilaaha illallaah Coly Faye daan na ko. Coly Faye daan na ko Babacar. ko daan na ko Biram. da koo jaay doole. doole yi bokkul. doole yi bokkul. ndeysaan. Coly Faye sotti ndax ma.